هدانا salaatu jëwriñ Pathé euh, Tawfekh Production ñoo leen ñëw seet si fii ci seen euh, bërëb bi tey lan nga ñuy wax tey ci maakalu Touba bi ak bërëb bi ñu leen fekk. waaw ginnaaw bi ñu nuyoo mbokk taal bi yi ñuy seetaan yëpp nuyoo bi ñu si jiital suñu sëriñ sëñ Mourtala Mbacke Saliou di ko ñaanal buur yàlla li nga xam ni moom mooy liggéeyu maamam bii te mu ne ci suñu borom yàlla defal ko ci tawféex ba mu am ci lu kawe njortam te yàgg koo ànd ak moom sëriñ bi nag dafa am ci goo xam ne da koo jox bisub sëñ Touba bi muy 18 safar ba war loolu waral barab bii nii ñu def ko barab boo xam ni ñi nga xam ni ñooy ñëw di ànd ak moom ci màggal gi di ay nit boppam di ay wëllëreem di ay taalibeem ñu ñu ñu leen ñuy ànd ak ñun di leen bernde ci màggal gi. loolu sabab nag ñun suñu suñu suñu taxawaay ci bis bi ñu bëgg koo def ci defin gu méngoog jamono ba nga xam ne daal bu ñu fi <clears throat> ñëwee ba génn fii dinañ xam ni daal fii moom moom ni ni sëriñ bi bëggee ñu koy màggalee am na fi. waaw donc loolu moo waral waral suñu suñu suñu suñu doxalin loolu moo waral jataay bi loolu moom waral barab bi. yaakaar naa liggéey bi amu leen ci benn tolof tolof. déedéet tolof tolof moom amu ci ndax day doon loo xam ni sëriñ bi ginnaaw biñ ci amee ñaanuk sëriñ bi ak ndimbalam moom dañ jàppandal ak tawféex képp lañ ci lañ ci lañ ci amee. amee ci benn gàllankoor amuñu ci benn fitna amuñu ci benn jafe-jafe tawféex daal lañ ci amee lenn rek mooy li ñu siy metti mooy daal day moom dañ naan màggal gi warul woon a jeex. dañ naan daal bis bii dafa waroon nekk bis boo xam ne day wéy ndax ñu li gën ci suñu dund mooy jataay yi ñu amee nii waaw bis bii mooy bis bi gën ci suñu dund at mi trois maanaam douze mois yi bisu màggalu Tuubaa moo ñu ci gën

be sëñ Mourtada ibnu sëñ Saliou ñu ngi nii taxaw ak euh, médecin yi sëñ bi ñu ngi leen nuyu. sëñ bi ñu ngi leen siyaar bu baax pharmacien la docteur Sëñ ñu la fii ci bërëb bi ngeen nekk yore euh, wàllum euh, médecine bi ku fi ñëw ngeen saytu ko xool ko bu baax loolu nan ngeen ko lijjanti. ñu leen siyaar bu baax te leen jaajëfal. daa mel daa mel ne dama cee fekk sama jëwriñ mooy sëñ Moussa moom moo ko daan def at yi jiitu woon yëpp man waaye at mii li ma li ma ci dugal mooy maanaam ak feebar bi moo taxoon comme dañ doon yëngatu ci wàllu Covid bi fële ci hôpital bi moo taxoon sëñ bi woolu ñu woon pour wàllum organisation kër gi ak mesure barrière rek yooyu ci ci liggéey boobu lañ nekkoon waaye wàllum consultation beeg yooyu daa fekkoon jëwriñ sëñ Moussa nekkoon ci ba noppi. moom moo wóyal ñu ko doxale après après par la suite on a on a eu l'appui de Touba assistance médicale ñoom it ci sëñ bi amoon yéenay jàpp ci liggéey bi donc ñëpp ñu bokk na ko defal la. bëgg sëñ bi noo def. Euh, maa ngi sant bu baax a baax. alhamdulilah tur beeg sant bi. Moustapha Sarr laa tudd. Moustapha Sarr. Mm. Moustapha tam ñu ngi la fekk fii ci bërëb bi di euh, kër sëñ Moutada ibnu sëriñ Saliou yow it ñu ngi la fekk tey ban taxawaay nga fi taxawaay. waaw taxawaay ci ndigalu sëriñ bi. at bu nekk dañ fi def ay consultation gratuite mooy dañuy ànd ak ay docteur euh, ñu càmbar nit ñi euh, su euh, su yooyu ñu may leen garab ñu may leen wala ñu bind leen garab ñu uti ko ci daal ci ci ci pharmacie yi. daal su ma déggee dégg consultation bi fii gratuite. waaw consultation bi gratuite si ndigalu sëriñ bi si ndigalu sëriñ bi. maanaam yéen boo leen consulté ba pare gis ci moom ay tawat tawat day ñëw fii ngeen may ko ci garab yi. waaw ñoom kuñ consul docteur ñoom man du ma consulter docteur yu fi nekk ñoom ñooy consulter ñoom suñ consulter ba pare suñ gisee tawatal yoo xam ne méngoo nag garab yu fi am yi ñu may leen bu fekkee garab yi euh, amul fi ni dañuy dem ci pharmacie bi bu fekkee dafa dekk euh, ay jàngaro yoo xam ne jar na ñu yobal leen ci yeneen docteur mooy Ndakaaru la fii ci Touba dañ koy def mooy lu ñuy wax orientation waaw loolu tam dañ ko fii def waaw kon jërëjëf ñoo ko déggandoo comme ni leen ko Tawfekh Production di leen ko defee saa su rek ñi ngi jàll tamit ci yeneen i mbir xool liggéey bi nan lay doxee tey duñ leen bàyyil dara lépp dinañ leen ko won incha allahu rabbi ci màggal gi

Baba عليه يدور وسلم سلام wasal